waaw bon euh, redéploiement bi Oumar Waly Zoumarou premier vice coordonnateur du grand cadre redéploiement bi euh, yaakaar nañ ni que waa Thiès waa région de ces wane nañ yoon wi yoon wi mooy képp ki nga xamante ne indi nañ la ordre de service pour euh, affecter la feneen nga lànk ne doo rejoindre poste bañ la yóbbu parce que ku dem mouvement national nga gagné sa poste ñu jël nga jàngale ba juróom weer juróom ñeenti weer jëm juróom ñu affecté la feneen lu tegul ci lenn. yoon may na la nga bañ a dem ci poste boobu ñu la affecté te Thiès wane na yoon wi defe naa ne fi ñu ko téye fii la ñun grand cadre boobu moo doon lañ joxe mooy képp ku ñu affecté nga lànk bañ a rejoindre sa poste gis nañ ne que am na ñu ñu fiy jéem a xoqatal xoqatal yooyu du mujj fenn parce que comme ni ñu koy waxee munuloo ñu lay laaj gestion démocratique des personnels nga xëy yeewu def mouvement national koo xam ne dafa compétir mouvement national ba gagné poste nga xëy bés ne da nga koy affecté. fekk poste boobu yaa ngi koy làqal ki nga xamante ne anam bi nga ko affecté woon foofu sax du woon anam bu leer donc tey ji vraiment taxawaay bi ñu ci taxaw leer na duñ ci dellu ginnaaw mooy képp ku ñu affecté ci poste nga lànk ne doo rejoindre poste boobu ba pare ñu xool fan la nguur gi di jëm ci loolu. Euh, waaw bon préavis bi jeex na daanaka parce que bés bu mujj ci njàngale semaine bi tey ji la donc daanaka jeex na comme niñ ko waxee. dañoo déposé badaaxalu artu 8 janvier 2016 di xaar nguuru Sénégal dalal ñu waxtaan ak ñun balaa ñu yegg ci cappaandaw gi mais gis nañ ko indiwuñu tontu euh, ñetti fan ci weeru février la ñu ministre de la fonction publique bind di ñu wax ne yëg na ne déposé nañu donc toog na weer pour wax ne que ne jot na badaaxal bi ñu ko jox donc loolu mooy wane ne que ne ñun lépp lu ñu waxoon li ñu waroon def def nañ ko base bi également mu ngi yëglu mu ngi wane boppam. dem nañu fu ne ñu ngi ñuy wax te tey jii li ñu jëlee ci Thiès leer na mooy lu mu bon bon euh, fukki fan ak juróom-ñaar dinañu dakkal liggéey bi am ay assemblée générale waaye ëllëg ba ñu jëm ci grève loolu nag aussi dinañ bàyyi comité scientifique saytu ko bu jaree ñu yokk ci dara ñu yokk ko ci mais